maa ngi tudd El Hadji Ndiaye Cheikh Ndindi Serigne Daara yoru kaddu bi rabita dañu daal sa Quran du Sénégal muy ligue de sacre Quran du Sénégal man maa seen porte-parole. Euh, li waral ndaje mi moom mooy ne dafa am concours alxuraan boo xam ne euh, moom la ñu tuddee grand prix Sénico grand prix Sénico Sénégal gépp xam nañ ko léegi mbokk mu ñu wax El Hadji Abdoulahi Dia ko yàlla sàmm ci aar ko nekk jàmbaar lool jël alal ju bari toll ci quatre cent et quelques millions euh, jagleel ko alxuraan ak waa alxuraan. ngir soññee ko sëriñ daara yi soññee ko dongo yi jàppale leen ko seen liggéey ngir ñu gën a taxaw ren di sixième édition yàlla dogal nag ay xale yu jóge woon fii ci gox bi ci Touba demoon fa lu toll ak juróom-ñetti xale bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy 45 personnes yi ñu tànnoon ne nombre bi lépp mi ngi matoon 798 personnes 798 candidats yoo xam ne bokkoon nañ ci ñuy def éliminatoire yi ba euh, tànn ci 45 yooyu yëpp nag dañ ci amoon ñun juróom-ñett yoo xam ne Touba lañ jógee ci biir juróom-ñett yooyu nag ñu ci biir 45 yooyu boobu ñu tànnaat ca 5 euh, personnes yoo xam ne ñooy 5 premières yi Touba amaat fa ba léegi ñetti candidats yoo xam ne ñoom ñoo ñoo jiitu ñu ne woon nañ daje tey jii mm, sargal leen ndokkeel leen ci teewaayu Serigne Kosso Mbacke Serigne Mountakha mi nga xam ne moom teewal Serigne bi Serigne Mamadou Cheikh Amadou Fadel Serigne Moustapha Mbacke teewal ko fi waa mairie bi teew fii conseil euh, départemental bi ñoom it fan Fadel Mbacke mi ko jiite ay ndawam teew teew fi ci kilifa yi ci teewaayu Serigne daara yi ndayu daara yi dongo daara moom moo dëgg solo jotaay bi ngir soññ leen ñoom xale yi ñu xam ne li ñu am tubarkal la neex nañu saf nañu safoo nañu ko suñu mbégte la ñu ànd ak ñoom mbégte mi waaye soññ ñi nga xam ne xale yi nga xam ne ñoo amagul loolu ñu xam ne kat képp ku def lu ko jar dañ laa war a defal lu ko jar kon suñu daje bi suñu waxtu yi suñu lépp dara waralu ko lu ma rek siggal alxuraan siggal ñooy alxuraan sargal alxuraan sargal ñooy alxuraan ak nag euh, soññ leen bu baax a baax ci li nekk nga xam ne li ñu nekk moom mooy dëgg yoon bi di ñaanal nag alaaj Abdoulaye jamono yàlla sàmm ko kattan ko yokk ay man-manam ba lii nga xam ne moom la taxawee di ko def jamono gi ne mu gën gën koo man jamono gi ne gën koo man ci yàlla bari ay moromam loolu rek mën na solo si wasalaamaaleykum wa rahmatulah waaw loolu mooy eh, eh, jaay sër Cheikhul Khadim Serigne Touba radiyallahu anhu yàlla ci alxuraan boo xam ne waxuñu ne kenn am ko de waaye cër la koo liggéey cër bu rëy rëy bu màgg a màgg cër boobu nag day ràññi ko jamono gi nekk kii fi teewal ci Cheikh Ahmadou fi jiitu ba nëgëni njabootu Serigne Touba gépp ci alxuraan lañu ràññi ko alxuraan lañ xam mooy seen lépp Sëriñ Muntaxa mii fi teew ci misaal nekk leen fi ñoom ñëpp léegi di ko xam ne alxuraan da ko yitteel lool xam-xam yitteel ko lool ñor ko lool. ñu gis ne nag euh, euh, prix yi fu mu amee baax na am na trop euh, jaay satu sëriñ ko prix Sëriñ Tuubaa la ndax taalib Sëriñ Tuubaa moo ko def ala yob Abdoulaye yéen taalib Sëriñ Tuubaa la radiyallaahu anhu fu mu amee kon baax na waaye prix yi lu mu gën a bari rek gën ci moo tax ñu doon sàkku sëriñ bi rek yóbbante ko Sëriñ Muntaxa teewee nekkal fi Sëriñ Tuubaa ya Sëriñ Tuubaa di tawasul ci yan sasam ci turam pour nekk sàmm téere bi ca bokk ci jumtukaay sàmmteer bi lii nga xam ne moom mooy euh, grand prix yi maanaam mu jaay say jawaay si bokk na ci lii sàmm alxuraan jumtukaay sàmm alxuraan ndax bi ñu tàmbalee grand prix Sénico ak léegi gis nañu yokk mag a mag a mag boo xam ne am na ci njàng mi rafetum mi ni mu gën a amee xale yi ni mu gën a witte mokkal gi gën a rafet kon loolu bokk na li soññ sëñ daara yi li soññ dongo yi lii gën a rafetal daara yi gën a rafetal njàng ci la bokk war bi nga xam ne bu am naa nekk prix grand prix ne wala waxuma national waaye mën naa nekk régional ci Afrique yëpp mën naa nekk sax au niveau mondial incha allah solo waaw ci biir neexal am na ko ñu jox neexal koo xam ne mu ngi tudd Serigne Cheikh Diop Serigne Cheikh Diop di dongam Serigne Khadim Ndiaye moom it euh, demoon euh, moom Grand Prix Serigne bi weesu bi cinquième édition bi moo jëloon deuxième bu dee euh, ren it mu demoon Kenya concours mondial bu fa amoon jëlaat fa deuxième kooku it nag commune bi sargal ko moom ni mu neexalee xale yi nga xam ne ñoo jël trois yi jël ci trophée yi moom mu neexal ko ci biir neexal yooyu ngir sargal ko ci kanam ay morom yittey tey daara moom daa bëri yittey daara moom eh, dafa dafa bëri jamono gi nekk ba daara ah, jafe am na jafe-jafe am na yittey barab yoo xam ne fa lay nekk am na ay ay dund am na yittey jumtukaay yoo xam ne moom jàngi loolu moom eh, barab ak dund moom mooy mooy mooy dëgg dëgg besoin besoin daara loolu moom ku ci bàyyi xel eh, jàppale ko daara da wax ne daara yi boo demee daara yooyu dafa jàppale defal ko mbaar mu am solo ak ay wanag yoo xam ne fa lay fa lay suturloo jàppale nga daara la nga des moom mooy ab dund bu ko gungee ba donga dootum tumuraanke